ci ñag bi la jëm lii di diriku di ñëw tribune yéen kaay na ma ci ñag bi la jëm de te saa buñ ci waxee muy gën a doy waar ci réew mi accident yaa ngi jëf-jëf ci doy waar askanu réewum Sénégal yéen kaay bi dee média bi daal di may xamal ne ñaari accident yoo xam ni faatu yi daal na ci bari lool moo daal di am ni ki démb diggante Sinthiou Malem ak Sindia yéen kaay bi ne ma accident bi nga xam ni moom moo am Sinthiou Malem ca Tambacounda juróom-ñeenti bakkan ñoo ca rot ci saasi bi nga xam ni nag moo am ci diwaanu Mbour juróom-ñaari bakkan ñoo ca daal di rot ci saasi muy accident yoo xam ni mi ngi bëgg bari de ci mënti waxit war nañ wax ci tali bi day balaa muy gën a ñaaw réew mi ko di jeenee li nar a ñaaw kay moom moo di njëkk yu cher yi cher ba jéggi dayoo ba askan wi daal di tum ranke lool mel ni nag dañu leen bàyyee seen cëggal guy yéene kaay bi ne ma président Macky Sall boobu ma ngay woote ay ndaje de di woote nag ay concertation ngir ñu xool nag ban feem la ñuy jël ngir njëkki mën a wàññeeku ci réew mi yéene kaay bi ne ma waaye ba ñu wootee dañoo xam ne ni ñaar fukki association consommateur ñoo am ci réew mi maanaam ñaar fukki association yoo xam ni xeex askan bi seenug jëfandiku nu mu gën a yombee ci ñoom moo ko tax a jug yéene kaay bi ne moo association yi fu ñu nekkoon dafa mel ni nag lu ñu ëmbul la de xëy suba rek daal di koy wasin ndax nag ba sénégalais yi di jàmbat jàmbat lu mitti sax askan wi jaaxle lool association yi moom fu ñu nekkoon le quotidien le quotidien ne en tout cas douane moom saa bu ñu yeewoo di wane seen bopp rek daal dinañuy sësir nag lu toll ci benn milliard ak ñaari téeméeri million xaalis bi nag ña ngi ko jàppee ca Rosso Sénégal ñaar ñoo xam ne njort nañu ne ay trafiquant lañu ñoo bëggoon jël xaalis bi nag rawale ko ca Mauritanie le quotidien ma bul dem jur gi nga xam ne ñu ngi leen di saax saaxee anam wu doy waar ña ngay téye koy def am na koo xam ne jàpp nañ ko mu daal di yore ay deru léopard ak jësit le vrai ne boobu day waa ko si dem ña nga taxaw temm nag ci année scolaire boo xam ne du am benn jafe-jafe ci ndongo yi ndax nag dañoo bëgg ñu daal di jàng ci jàmm gréew yeeg fitna yi daal di wàññeeku ci biir njàng mi le vrai journal ne Macky mbaatal na kenn moom président de la république day saa si tembe gaa yaa ngi koy tuñ-tuñalee fu ne Mimi Touré ngi koy défier foofu sa loxo de ndax Mimi Touré saa si tembe nag mi ngi dundaloo jaxaan na ma président Macky Sall gannaaw sëy bu doxoon digganteem ak majorité présidentielle bi te sëy ba daal di tas tasar mi mi xamle ko ëllëgug mi mi Touré lan lay doon moom professeur Ibou Sané UCAD daal xamle ni Aminata Touré daal loo ci mënti dégg teey daal deful yàkkamti moo ko daal dal te yàkkamti yàqule wolof Njaay ko wax Domingo Mané ne mi mi daal feem bi mu jël saa si tembe da koo téye takk ripp ci ñetteel bi mandat bëgguma te loolee nag stratégie bu baax la ngir sénégalais yi nag joxat ko bopp moom Mimi Touré moom professeur Moussa Diaw UGB ne en tout Touré daal la mu xamle leer na nee na ca assemblée nationale tey jii lay déposé lettre bu démission Walf Quotidien daal di may xamal ne Doudou Wade day ma nga xam ne daanaka ni Mimi Touré daal muccaloo ko ca assemblée nationale mënta yomb le vrai journal na del sil ci président Macky Sall gannaaw Mimi Touré mi nga xam ne saa si tembe teg na yeewi daal di weñ loxoom njëkk yi metti lool ci réewum Sénégal daal di tuñtuñal président bëgg koo yóbbu aar dafa waaye la muy dund na lool ci diggante njëkk yu cher ak wàllu politique Sud Quotidien yi nga xam ne dañoo wax na lañ koy gagné Mamadou Lamine Diallo daal xam ne ci yéenekaay bi ne na mu nee woon noonu lay nalee opposition bi day mënu na leen yi njëg yi mënta Sall bu leen mën na wàññi lool mënu ko le vrai journal ne en tout cas lum ciy def na ànd ak gaawtu ndax moom président Macky Sall mi fukki weer ak juróom ñaar moo ko dese ci bopp nguur gi gars yi laam-laamee ñaareel bi mandat nag vox populi ni ku naan maan génn leen ci li ngeen nekk ndax nag gocce paske xam leen na ci ñaar ciy tuwit ne diggante président Macky Sall ak Macron waxtaan dox na seen diggante mu xam leen ni dalal xelu Macron xamal ko ne moom président Macky Sall du nekk candidat Amadou Ba mooy ki mu tabb ngir mu daal di koy wuutu te buñ duggee ci 2023 moom président Macky Sall dina xam leen du def ñetteel bi mandat yéene kaay bi ne waa pale ci boppam ña ngoy weddi boobu le xibaar xam ne wérul président Macky Sall mësu koo wax le vrai journal ne président Macky Sall daal lu mu mën a xam te ba ko mooy ña ngi koy tuñ-tuñee fu ne direct news na njëkk yu chéri bokk na ci de te moom président Macky Sall sax dugg na te xeex baak loolu daal di may xamal ne am na ci yaakaar ba daal di yankeeku ndax jàpp na ni nag ndaje yi buñ ko amalee gars nag mën nañ am yaakaar ci njëg yi daal di wàññeeku waaye nag fa yaakaar di yàngi koo mooy njëg yi ci boppam dafa dépendrul ci ñun dépendrul it ci autorités yi te bu ñu nee mën nañ ko wàññi yenn wàññi ah xel mën na caateey 24 heures yéene kaay ne ma Mamadou Lamine Diallo day daal dinay dal ci kaw président Macky Sall ci njëg yi mu ne da koy wàññi Mamadou Lamine Diallo ne moom président Macky Sall mënta wàññi benn njëg Mamadou ne bu ngeen fàttee ma fàttali leen 2012 président Macky Sall waxoon na ko dara wàññikuwul moom Amadou Amadou Ba ak Amadou Xot mi fi jógee lépp lu dal réewum Sénégal ci bor yu bëri ñoo ni ko teg ñoo wàññi doole entreprise yu réewum Sénégal ñoo tàbbil réewum Sénégal ci ndóol moo tax nag saa si tembe madu Ney la jàmp kay moom moo di soppik doxalin daal di soobu nag ci xëyu ndaw yi soobu ci wàllu wér-gu-yaram soobu ci njàng meeg njàngale mi waaye tam industrialisation tribune yéene kaay ne ma Mamadou Lamine Diallo day daal dinay jiiñ lépp Amadou Xot ndax jàpp na nag bi nga xam ne ñi ngi koy sàccee réewum Sénégal dañ koy rawale bitim réew Amadou Xot xam ko ne ngeen xamee ko noonu de dara tënkul réewum Sénégal lu dul bor yu bëri te kenn teguñu ko ku dul Amadou Ba ak Amadou Xot Le Soleil yéene kaay ne Riyad lebalati na Sénégal de ñeent fukk ak ñaari milliards day la fonds saoudien dugal ci autoroute Dakar Tivaouane ak Saint-Louis bi booba Tribune yéene kaay daal di may xamal ni lobby yaa ngi mel ni mbàccum gerte ci conseil des ministres bu njëkk niki démb ña ngay xool nag naka la ñuy séddalee poste bu DG bu budget ak bu directeur bu AIBD booba l'exclusive yéene kaay ma ngi may xamal ne ay mbóotu réy la ñu daal di sulil Mamadou Diagne Mbeng foofee ca yoo xam ne dañ leen bind ñu ne dañuy liggéey ca mairie ba ndekete liggéeyuñ fa scandale ci wàlluk suuf am na fa ay lotissement yoo xam ne jaarul yoon passation service amul ca mairie bu Tiwaawan ba ñu fa duggee ñi nga xam ne ñooy équipe bu yees bi ñaari ordinateur la ñu fekk ca biir mairie ba lii tax na nag ba équipe bu yees bi daal di ñaxtu la nga xam ni mooy ma Mamadou Diagne si mbeng ca Tiwaawan libération yéene kaay ne ma geneen ñaxtoo ngi nii de mooy fede bamtaare ab mouvement la boo xam ne la leen naqari moom moo di Abdou Karim Sall la ñu ko dàqee ci gouvernement gi nag loo ci manti dégg ndawuk dande mayooy ne Abdou Karim Sall moo leen di solul mbubbu xeex bi gannaaw mbaaw ak Pikine moom Abdou Karim Sall day moom moo taxawu xëyu ndaw yi foofee boole doole yépp ñu daal di àndandoo di xeex te it moo doon seen cëggal guy tey bu ko président Macky Sall dàqee ñoom fan la ñu jëm ndax nag ko amaloon njariñ askanam la bu ñee dee ñaxtu ñi di kontaan ndax nag tabbu Mamadou Moustapha ba mi APR bu ñooro ña ngi koy daal di rafetlu buñ sukkandikoo ci Moustapha Biteye directeur général bu groupe SUPSEA président Macky Sall day juumul ci tabbu gu yees gi mu tabbu ministre bii tey ñooro gépp nar a takku jàppale ko ci liggéey bi booba tribune yéene kaay xamal ma ne liggéeyub Ousmane Sonko ci diwaanu Sigicoor day la ñuy xool lu mu ndax nag premier octobre bii di ñëw lu toll ci téeméer ak ñeent fukk juróom ci ay doomu aadama yu doon liggéey ca mairie ba moom Ousmane Sonko dina leen defi chômeur libération yéene kaay ne ma laataa lépp jàppal ni coowal Californie day jeexul ndax nag bu dee rapport bi dafa ne aji caare mii kenn sàkku ko ñaar ciy plainte bu ma jàmbal jaañ ak Alphonse Mané ma nga nar a nag ci ndoddu Californie libération ma ñaareelu suspect ngi nii de ñu téye ko nag ci faatug na Nafisatu gii gannaaw boroom kër ga xaritu boroom kër ga yi daal dinañ koy téye te la nga xam ni enquêteurs yi moom lan njortoon loolee moom moo am ci faatu xale bu jigéen bii dañu koo faat l'observateur ne ma ña ngi faat jigéen ñi de waaye bu dul woon ak ñoom saa si tembe ci réewum Sénégal làmbaay daal di ñaaw yéene kaay bi ne ma soxna yi daal dëgg-dëgg ñooy joyanti mu réewum Sénégal ñaari junni juróom benn téeméer juróom fukk ak benn milliard de entrepreneuriat bu soxna yi ak seenub leadership daal dina koy dugal ci koomu réewum Sénégal ñoom soxna yi nekk ci secteur yépp ba mu des bu tabax gi ak bu transport ak loo ci mënti waxit fi réew mi toll l'observateur ne jigéen ñi daal ñooy xeex dëgg-dëgg koomu réewum Sénégal man yéen kaay bi waxal wax bi jigéen ñi saa si tembe ñoo ko yor ak lu mën a am mbok yi nañ nekk ci jàmm te di yendoog jàmm